lay Laye Momadou maxtar mbokki axlullaahi nuyu nañu leen del si ngeen ci seen journal waajtaayu appel defoon nañ ko daaw ren yàlla may ñu fekke ko dañ koy dolliwaat ngeen ànd si ba tey nag ak Diamalaye Events Layeen Digital waaye ak ñi nga xamante ni ñooy waa Nuurul diw ñuy waajal nag cent quarantième commémoration de l' appel de Seydina Limamou Laye tey ñu ngi fii si yoof seet si ñi nga xamante ni ñooy waa Vision 129 si noonu suñu ndaw soxna Maguette Laye am na waxtaan bu am solo bu mu sekk ak ñoom dañ leen di dégtal élément bi rek te dikkaat. waaw comme ni ko ma sëriñu ñu ngi fii tey samedi yemook 29 février 2020 fii ci Yoff Jàmmalaay kan wa vision 129 lu ñuy 140e commémoration de l'appel de Seydina Ali Laye ñu dem xooli élément yi té ñëwaat. bismillahi rahmaani rahim aouzu billahi mina seytaani rajim laa xawla wala quwata illa billahi aliyil azim alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu ala seydina limaam alayhi salaatu wasalaam ginnaaw bi ñu ubbeeko si tur yàlla di wax bismillahi rahmaani rahim di mus seytaane di ñaan yàlla bu baax yal nañu ko yàlla tënkal ba du man dara si sunu jotaay ak sunu si ñun di julli si sunu yaakaaru tey ëllëg di seydina limaam alayhi salaatu wasalaam Euh, yàlla moo ñu gën a xam ne ñu julee si moom te mu digle ko yal nu yàlla julli si Baye Laay ak njabootam gi sama maam Seydina Issa Rouhou Laye nekk sa bopp ba di ziar xalifatul muslimin Seydina Baye Abdoulaye Thiaw mu yàgg fi ak njabootu Baye Laay gi topp si ginnaam gi yëpp sunu Baye Doudou Makhtar mu Seydina Mandione nekk sa bopp ba euh, di nuyu kuréelu Seydina Limaamu Laay gi yëpp euh, di wax li nga xamante ni kon li ñu laaj muy budget bi nga xam ne nii ku gis euh, sunu sesetal bi nga xamante ni moom la ñu yàlla nattoo New York euh, war nga xam ne lii alal moo si dugg ndax yàlla moo ngi dogal depuis 2007 2008 ba tey noo ngi yor sa sesetal bi nga xamante ni moo nekk avant première appel boobu ba tey euh, at mu jot dafay yokk mais ren ku xool sesetal bi ni mu mel ak liñ fi fas yéenee liggéey si dëkk bi xam nga ne loolu ay moyen moo ko yor.

am na ay bonne volonté yoo xamante ni jël nañ seeni i moyens def ko si biir li nga xamante ni mooy association boobu pour jàppale nu si biir sa Setal bii nii euh, ndax lii benn nit mënu ko financé ñaari nit mënu ko financé ndax ku xool liggéey bi nga xamante ni moom la ñu fas yéenee liggéey si euh, woote bii nii nga xam ne lii xaalis moo ko yor benn bi euh, fi ma koy mooy li nga xamante ni mooy programme bi ndax tey jii la débuté. muy le 28 euh, bi suba incha allahu rabi dañu koy tëbal ndax suba la ziyaaru Seydina Baye daloon jukkalu Seydina Baye Abdoulaye Thiaw bi moo tax duñu duñu duñu liggéey mais depuis à part loolu lundi la ñuy commencé waat soir gi ba le 6 incha allahu rabi ni jeexal ko fii si jàmmalaay ndax jàmmalaay dañu koy programmer pendant une semaine yoo xamante ni fii la ñu nekk bu ñu jugee jàmmalaay la 7 bi ak le 8 bi la ñuy jël li nga xamante ni mooy tali yi nga xamante ni moo nekk si dëkk bi la 7 danu fas yéene tàmbali fii nga xamante ni mooy Euh, tali laayeen yeeg tali yof yi yëpp ndax euh, vision 129 day def bu sa sa bi commencé fële sa tóngoor fala nii jëm jël tali tóngoor yi ba tali apex yëpp nettoyé ko dimanche noo ngi jëm fële nga xamante ni mooy di xuntama sa ngor ndax foofu tamit dañu ko boole si suñu programme bu nu fa jugee euh, ba semaine boobu jeexaat yëpp dañ koy jël tali bu suñu dernière semaine moom la ñu xalifa bi ak i bu nu jëlee kër xalifa bi ak rakab waaye dañ siy jiital samedi ba kër papa Doudou mu sëy naa ma njoon fële sa Cambérène ndax loolu tamit si programme vision nu la bokk buñ fa jugee ni wàcc xabru seenaay saaro wala ka buñ ñëw si kër xalifa bi dem kër Pape Momar Lamine ak Pape Mame Diène dem kër Pape Baye Ousseynou Laye loolu mooy sunu programme bi nga xamante ni no si woo jaam yàlla yëpp di woox ne kuréelu Ahlou Laye bi yëpp nañu ñëw jàpp ndax lii nii def defuñu ko dara loolu la Baye Laye alayhi salaam xam nga ne set moo fi baax ndax ñëpp sol lu weex te bu ñu solee lu weex kenn lalul siyaaru toog si kenn lalul basan toog si kon ñun nag an-nazaafatu minal imaan boobu la ñu gëm ba moo waral nii def sa setal bi nga xamante ni ñu ngi si woo julliti yàlla yëpp wa ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasulullah di ñaan yàlla bu baax yàlla nu si yàlla defal ndam di dugg si bismillahi rahmaani rahim génn si alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu ala sayyidina comme ni ko sunu sang ba Baye Seydi laay daan waxee buy xare ji jigéen ñi lay àndal defe naa tey ku ñëw jàmmalaay xam nga ni jigéen ñi de ginnaaw ci liggéey bi ñu ngi fii nag ak Soxna Mbathio Soxna Mbathio nan ngeen dundee liggéey bi ala rawatina fii nga nekk fii ngeen ñu nekk nii muy xabru Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam nan lan war a ñëwee ci bërëb bi. ah bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bi ñu bokkoo suñu turu borom ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonentaam bi Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam di ñaanal suñu xalifa général Serif Abdoulaye yàlla na fi yàgg te foofu nga commencé sax man fa laay commencé si Baye di Thiaw borom fit wi boroom jàmbaar gi boroom sañ-sañ bi yaakaar naa ne tey jii bu ñu toogee bay féete appel moom la ndax moo ko fi njëkk a def ah lii nag defe naa ne du suñu première fois yàgg nañ kaa taxawe te fa séeni see taxawe waat ren dugg si si bisimilahi rahmaani rahim génn seek alhamdulilahi rabil alamin fassiyene commencé fi nga xamanteni ni moy jamalay seyna naa limaamu lay ka ba mu set ba nga xamanteni ni nii nit di fi dox sax di fi for bant defor ka ba mu baax pour waajal appelu Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam boobu ah, niñ koy commencé niñ koy waajale nak moy goor ak jigen mag ak ndaw surtout jigen ni ndax defena buñ nee lay ni jigen soxla nañ ci jigen ni bu baax seen taxaway seen set ak seen ndax yaakaar naa ne bu ñu wootee jàmmalaay rek ku nekk sa xel war naa dem si ne jàmmalaay kat béréb bu set la béréb bu sell la ba boo fi ñëw am na noo xam ne war nga ko fee ñëwee béréb boo xam ne boo fi ñëwee fajuk aajo nga fi yaakaar kon am na noo xam ne war nga ko fee ñëwee set sell la ak yiw ba ci sax dañuy wax ne jigéen bu amee ngànta jéggal nañ la jàmmalaay ba yàlla dogal nga sangu ba set ak jàmm fóot sa yére ba mu laab nga ñëw ñu àndaat ci liggéey bi ci set ak ci sella ndax sëy naa limaamu ci set ak sella la woote te béréb bi dafa set dafa sella kon ku fiy dugg war ngaa set sella ba boo liggéeyee ba pare boo fi ñaanee yàlla yàlla faj sa aajo yépp euh, ñu ngi woon nag jigéen ñi ñëpp bàyyiwuñ kenn képp koo xamante ne nii rek laayeen nga ku dul laayeen képp koo xam ne yaa ngi wax asadu an laa ilaha illallah wa asadu anna muhammadu rasulullah woon nañ la si bés bii nga xamante ne ni ñun moom rek lañu am waa Yoff moomuñu ko de waa yoof kese moomuñu ko waa Laayeen moomuñu ko ñëpp ko moom képp a koo xamante ne nii jullit nga rek ak foo mën a nekk rek ñu ngi lay ñaan yàlla. nga ñëw ci suñu bés bi nga xamante ne nii moom la ñu bëgg a setal ñoo ko gisanoo mbokk yi mu nekkoon suñu ndaw soxna Maguette Lahi Thioub foofu si jàmmalaay bu Seydina Limaamu sallallahu alayhi wa sallam mu jëloon ñu ki nga xamante ni mooy Pape Mbaye Lahi nu maam Alassane Lahi di président commission organisation bu vision 129 yëkkati na kàddu yu am solo joxe na nag itineraire bi maanaam liggéey bi tàmbali na ku ñëw dañuy liggéey ku ñëwul dañuy liggéey kon gars yi nan si jàpp fekk si leen si liggéey bi setal bërëb yu sell yooyu mu tudd yëpp. lépp ngir waajal bis bu sell boobu waaye soxna Mbaaco laay tamit wax na si kàddu yu jigéen ñi wane ni ñoom kat kenn demul ñu des kon mbokku jigéenam yëpp mi ngi leen di woo si set setal boobu noonu wax na it si teggin yu nu war a ñëwee si jàmmalaay naka noonu mbokk yi fekk nan jàmmalaay ñi nga xamante ni ñoo koy réfectionné maanaam taaralaat jàmmalaay bi defaraat ko ba mu sell mën a teeru gan yooyu nga xamante ni ñooy ganu Seydina Limaamu yi dañ leen dégtal boobu rek it te dikkaat ala muhammadin sayyidul arabi wal ajab allahumma salli mustafa asalaamaaleykum ñu ngi leen di ziar di leen nuyu yéen ci seen boppa di nuyu waa àddina di nuyu waa axlulaay yëpp di jëkke ci nuyoo bi nag sunu xalifa Baye Abdoulaye Thiaw Laye xalifa Seydina Limaamul Mahdi mu wàcc ba sa njaboot gi yépp yal na leen yàlla defal jàmm defal leen fan wu gudd ak xéewal ak sutura ba ajuboo bi ñuy jublu yàlla nan ka fekke ak jàmm ta talka te yàlla may ñu say xéewal ak sutura ak taranga ak wërsëg liggéey bi ni mu demee ñu nga ko jële ndigal li ci xalifa général mu jaare ci Baye Ndiin Thiaw Laay ñu commencé liggéey bi ba mu wàcc ci doom yeex sit yeex rakka ci lañu Amin ndigal ñëw commencé liggéey bi liggéey bi nag mooy dañu karale si biti façade yëpp quatre quatre côté yëpp karale nañu ko def fi ay projecteur dugg si biir def estaf maanaam mooy plâtre si ak si biti def fi ay lampe yu leer yu rafet sax defaraat dal ba mu gën a rafet daal bu neexee yàlla nee nga ma ndax dina appel bi bu neexee yàlla dina pare balaa appel bi dina pare sax 15 jours avant appel bi si kàntanu yàlla mais lépp nag ñu ngi jël rek ndigal si xalifa bi ay rakkaam si liggéey bi ñu fas yéenee liggéey ni ba mu yeggal ki ka financé nag mooy ku ñuy wax Omar Niass Laay ak ku ñuy wax Mara Laay ñoo ko ànd ak gi ànd ak yi ñëw ñu liggéey liggéey bi mu ko teg nag sama loxo maay coordinateur bi may xol lu yenu mana ma wax lu yenuul mana tam na ma nañ ko dindi fofu dal lan tollu pour l'instant ci liguey bi ni mais lepp nek ci ndigalal khalifa bi rek. gis ngeen ko nonu mbok yi mu nek réflexion bu am solo bobu nga xamanteni ni lañuy def ci jamala yu sayidina ali mamou alayhi salam gis ngeen porte yi nonu ñukay peinturer waye taral bi ñuy taral bërepp bu sel bobu tamit yaakar ni yéen ñëpp ngeen si seen bëtt kon mbok yi fi lañuy yam ak yeen tay ci seen journal waajtaayu appel di leen wax ni nak journal bi dorna lepp ci appel bi defar bis bi gan yi ñëw ñëpp toog lépp sell waaye nag du ñu fàtte ki nga xamante ni moo bay tool bi ba mu naat góob na góobaaleel bàyyi yi góobaaleel maam yi waaye góobaaleel ñun doom ñi kon kenn du moom doomi maam gaan yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér moom Cherif Abdoulaye di leen ñaanal nag yéen mbokki jullit ñi appeluk jàmm